bonjour bonsoir salaamaaleykum ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci seen fidélité yéen ngi seetaan seen émission sur senepeople.com tey nag sama invité mooy njoole artist bi nga xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal njoole ñu ngi lay dalal bu baax ci senepeople.com. waaw raxu maa gi delloo dalal gi bu baax. waay waaw. di leen ko delloo. di <laughs> ñun nag gën a kontaan ci waa Ndiolé dañuy bàyyi nga daal di présenté wu njoole mooy kan. waaw Rakhu njole moom mooy Ndiolé Diama Noir yaay mam Diarra xale bi dëkk Touba di Serigne Mustapha kooku mooy Ndiolé. waaw fan la Diama Noir bi bi nag moom lu ma fental sama bopp la parce que man dama bëgg teint noir li may gis ni mosuma xeesal sama papa dëkk Touba sama yaay daa ko woowee gis texe ndax sama papa dafa ñuuloon bëbb la. sama yaay naan ko gis texe jamaa noir yaay sama jamaa tur boobu nag mu tuddee woon sama papa man moom laa jël tuddee ko sama bopp sama beneen jeegit muy ndey gay Iran jëlaat naa ci moom jamaa noir ndax jëkkëram jamaa noir la ko doon woowee. est mais man bëgg teint noir yi bañ a ragal seen noir parce que amoon nay temps raxu xale boo gis mu ñuul du nangoo génn. day am rusukaay. complexe boo dee xeesal sax ba xaw a ñuul tuuti danga naan du ma génn ndax bu ma génnee damay ñaaw mais léegi koo dajal bu xeesaloon ba weex mu xëy ñuul boo waxee mun la jamaa noir. loolu c'est une fierté en bëgg naa xam aussi Ndiolé musique bi naka la ñëwee ci yow. waaw musique bi moom loo xam ne lu ma daan def ba ma nekkee xale la woon du loo xam ne dama cee joox rek dugg ci mbala ma riirandoo dag maa wone sànq ak ku ma neex muy aw njaay coppet daanan ànd ma nag moom di fecc li may wax moom xam na ko bu nu masaa ànd ñoom mënuñoo wax ñoom kenn du ci taasu bu nu àndee fecc man may arrêté sabar yi jël micro bi taasu boobu leen gën a nekk xale ca dara ñaawul njaay ñuy ànd nag ba tey jëkkëram gis nga bu nu bokkee prestation nii lay def ak man ñu ne ci jàmm su ma amee samay géer wax ko bu amee ay géeram wax ma yaatal ma yàlla na ko yàlla jàppale muy papa ngay coppet ñëpp xam nañ nag sama digganteeg moom leeraat na waa Paris ndax fu ñu daje rek dara ñaawul waaw. aussi mën nañu wax ne Ndiolé sa moment bi nga xam ne ñu ngi lay xam ci jamono ji mooy sa duo bi nga def ak Pape Diouf ci la la nit ñi gën a mën a découvrir ci musique bi bëgg naa xam ban relation nga am ak Pape Diouf. waa Pape li may wax ci coppet Pape daf ma yàgg sentir muy sama càmmiñ def kaset du man moom la da ngaa tudd laaw laccat tubaar fakkal la macha allah ku mën a way ku dégg daaj kaset bi du man paap la man damaa sàppali rek waaye lépp moom la moo suukar moo def suukar vanille def ci poobar dëbb laaj jimbo lépp paap juuf la njole dafa ñëw rek dugal yéeneem waaye lépp paap la sama digganteeg paap nag bu ma koy wax day day day day day gudd fii parce que dem na sax ba soiréem danaan ma man naa woo samay géer allo Ndiolé ma ne ko ah, mu ne ma wóol say géer ñu ñëw teral la nga wax leen yow yaay tëgg soirée bi tey barke Serigne Saliou du duyoo bi rek la defee man boobu ba tey ba mu jàppee ba tey bàyyiwul moo tax sama digganteeg moom du ma bëgg sax di toog lu bari di ko tudd ndax damay ñaan yàlla lafal ma cat sama digganteeg moom ndax dëkk bi lu yàq rek cat a ko yàq moo tax du ma bëgg sax di wax ci moom lu bari mais daf maa yéene di sama càmmiñ bëgg sama jëkkër jabaramit bëgg ma teg ma place xam maay kan. mais Pape moom lu mu def rek ca njole bokku ca day defe ne du neex waxee mun a Ndiolé taal moo may daaneel nit fanaa fi ne nii bu fay bu fay tëgg day wax man ma woo sama xarit yi invité leen sama génn ñi dama leen di wane leen tey maa Pape bay tëgg soirée ñoom ñëpp ñu ñëw bu ñu ma jël micro bi dawal kaas woo ko ma neex ba doyal jox ko micro mu jël tegal ma ca bu may dem mu fay ma su may dem ñoom dañ ma faa daggal cachet su may dem danaan jox leen Ndiolé kon mënu ma koo fay yàlla na yàlla wéral baatam. ndax garab bu la sutul du la may ker yow raxu xam nga ne ndaanaan la laaw la cat yàlla na ko yàlla lafal cat te yàlla bàyyi ko fi ba man daal li ma koy yéene bari na daal waaw waaw ki bàyyi ñëpp taasukat yi bari loolu mun a njole taal kooku kasetam bi su ma ci mënoon a def lu ëpp kas-kas dama ko ciy def te beneen yoon bu ma waatee naa def lu tukkal jamono mais morceau bi ngeen def muy kas-kas yow li nga ciy wax noonu Ndiolé sa xalaat la sa inspiration la wala ñoom ñoo la bindal texte boobu jox la ko. waaw loolu lu ñu ñoom am na luñ ci xalaat lu mel ni kas-kas bi ñoom ñoo ko xalaat bugguma sax di ci détail ndax sama jëkkër dana ma chaque jour rek bu na laa laajee ne lépp Pape la mais yeneen yi ci topp yëpp maa ko xalaat. waaw looy wax ci morceau bi. man kaas kas rek lañ ma wax loo waaye suukar seeg xorom bi yëpp yooyu maa ko jam ndax yéene ko paap rek te am naa yeneen yoo xam ne naroon naa ko cee def sax waaw amoon naa yeneen yoo xam ne ah, naroon naa ko cee def paap daal dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat wax dëgg yàlla Diouf sagal na ma fu mu jëm yóbbu ma lu mu am may ma ca bokk naa man lépp wax dëgg yàlla lekkul bàyyi ma. am na aussi leen lu ñu dégg ci yow fan yi mooy njool dañ koy dégg buy def ay prestation naan sama junni bi loolu fan la jóge et puis lu tax sama junni bi lu tax waxoo cent mille francs ay ay euro ngay wax sama junni non bi dafa am lu mu demee xam nga càkkukun lu bees la lu génn Sénégal bëgg ko ñëpp di ko taasu man génnewuma ko du sama œuvre woyuma ko mais neex na kuy taas wax ko nit ñi kontaan di ko fecc muy lu bees li fi usa ñëwee rek noonu la fi ñëwee comme nga. mais man sama junni bi dafa am fu mu jógee damaa demoon taaja boon yi kër kii Kumba Gawlo jóge fa dem kër Pape Diouf ñu ñëw di wàññi xaalis bi bi ma ñëwee di ko wàññi suñu kër ñi ma àndal jël junni bi sama mag laa àndaloon sama ñaari rak ak sama ñaari xarit. waaw lu gaaw gaaw ñoom sàcc nañ junni bi. ma jóg di seet junni bi noonu rek commencé naa leen caba ju gan càkku gon ke ji gàncax sama junni bi ku ko jël. naan ko Ajinoo Gay wala Xadi Gay déggoo ma de. waaw Xadi mooy sama mag ñoo bokk ndey ak baay. bu dul kële di kële. Ajinoo mooy sama fan si bi nga xam ne daf maa bëgg. Uh-huh. ba bu ñuy taaje bu ni day ñëw mais bu ma ko séddee day bañ. moom ambiance bi ak moo ko neex. léegi nag ma jiñ ko junni bi moom ak sama mag mooy sama junni bi ku ko jël Ajinoo Gay wala Xadi waaw après mujj nañ koo génne man leen moom mooy am jàmmaam ñu ne ma comme junni bi gépp nga ba génn ko taas doon koy génne ndax buñ ko sàccee mën naa indi problème. waaw suñu invité mooy Ndiolé nekk fii ci senepeople.com waaw Ndiolé léegi lan mooy sa projet sa avenir lan la sur le plan musical. sama projet mooy nu ma des ba sama album génn mhm. maa ngi ci di liggéey man nag yàkkamtiwu ma dara ndax tepp tepp gën yu réet te dukk dukk xel la yomb yomb xel la mais mel la say yàkkamtuwuma dara ndànk ndànk rek gaa yi nag léeg-léeg na waa njole kañ lay génn kañ lay génn man leen ci kanam ndànk rek damaa bëgg a togg ba mu ñor loo xam ne bu génnee jariñ gaa yi bu génnee jariñ xale yi fi ne ndax dama fee defoon ñëpp di xeesal man ma ñuul du ma bonde damaa dëkk Touba yaayi mam jaara gaa yi ne neex na man duma ma ne neex na ñoom ñooy jugé mhm. ma def jaboot ku ko ñee mas nga ko yërëm ki gën ci kër gi gën ci làng gi liggéeyu ndey pikir la ci doom doos bi yegg si na kër goo gis oto ba rafet karoo ya melax yéeg ba ca kër ga di tax na ceeb xaw naa dee mu jariñ maire yi xalaat jooy damay indiwaat leneen loo xam ne dinañ ko bëgg sàmm mbayaat rek fi lan ko fekk fi lan koy bàyyi ndax maama ko fi ba ku génn kaset war nga wóor say géer ak say nit dem ñu ko ba waaye damay bëgg man chaque jour bu génnee ma wax loo xam ne dina jariñ askan wi avant ñuy boucler suñu interview aussi bëgg naa nga wax ñu parce que am na benn exclusivité boo xam da nga ko indi fii ci Paris ndax xam nañ en ce moment yaa ngi France ñëw nga ak Papa Ndiaye Thiopet pour quelques dates bëgg naa nga wax ñu vraiment morceau bi nga def sa bi nga def diw ak sa yaay morceau boobu lan lay wax ndaxte dégg nañ ci vraiment nga ciy wax ay wax yu am solo ci biir. waaw loolu sama yaay daf may tere nee na nee na dama man lu ma am daal damay jox Moustapha bàyyi ko loolu la wax ci morceau bi. dafa xaw a fiir quoi. waaw déedéet fiirul nee nag man damay am daal di jox Moustapha rek di ko bàyyi ma ne ko ci yow laa ko gisee ndax moom da daan woyaani ba ñëw jënd ay ginaar njoñ jox sama baay mbub mu rafet mu jënd jox ko sama baay dàll bu rafet mu jënd jox sama baay doom ndayam da caa dëgër bu koy nàmpal da koy xool ci loolu lépp nag ci yow laa ko gisee ci ay tànkam laa jaar ndax da doon toppatoo sama papa bëggul lu ko naqari ma sama papa demee marché Ocass mu togg mbana. ñëw wàcce na ko gis te bool baa ngi waa marché Ocass ñëpp ñëw ak boucher yi kon lu baax moom loolu may def ci moom laa ko gisee ba tax ma di ko def waruma koo tere. mais moo tax nu ciy mais après fin bi dama ne ko yaay nanga ma baal ndax yaa ma jàngal baa jàngal ma siin jërëjëf yaay ndax ku am ndayam foye ko gis ku am ndayam téye ko. laa ko wax ci fee bi. waaw xam naa ne ci loolu la ñuy daal di conclure émission mais nag comme que ñu ngi France. dañu jël waaw génnagul moo tax ñu doon am exclusivité boobu loolu kenn du ko sàcc kooku yow yaa ko moom. non non non non non kii loolu moom. yaa ko moom loolu yaa ko moom. waaw dama bëgg nga xool dama bëgg nga xool euh, ci caméra bi nga daal di wax en français waa senepeople.com ah, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan nga tàggu leen conclure. Mm, gis nga raxu. danga may wax rek li ma jàng ay français moom bu ko ci dugal waaw. non dama bëgg rek nga tàggu nit ñi en man ndax man jàngu ma man jàngu ma ba ñi ñey jàng sama yaay mi ngi jàpp sama loxo di ma yóbbu ci ay laabaan su ma masaa yuuxu ñu naan ko mère kii li nga koy def baaxul bàyyil xale bi mu jàng wala sama xaritu yaay boo masaa yuuxu ci laabaan sama fond bi boobu jugul baat bu sew laa yor ñàkk karaw eh ñu ne eh xale bu ndaw bu juddoogul bii di way ma dëgër bët rek fu ma fekk sama yaay nag ay ndaanaan ne fa dama koy jàppale. pour ñu naan xale bee fi toj xale bee fi toj mais ma jàngal ñeewu ma ñi nga xam ne dañoo jàng nag laaw la en tout cas ça a été un plaisir Ndiolé ça a été vraiment ça a été plaisir de te recevoir sur senepeople.com merci pour ta présence on te souhaite plein de bonheur. et l'album qui va venir espérons ça sera un succès international. merci maa ngi kontaan ci yow ndax lépp yow la bu lekkee alam na koo gërëmee coy ndax artistes yi bari nañu trop nga di njole ak coppet loolu dafa rëy yàlla na la yàlla lafal cat te bàyyi la ak anta jéeg bi nga xam ne laaw la cat tey li mu ceeb dëkk bi toj na sunu xel dafa dem ci Sénégal mu def ba mu baax léeg mu ne la raxu Sur ce, merci à vous. Bye